assalamualaikum mbokk yi àndal chen youtube daare alquran ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci video yi ñu baax def chen bi di la wax bu dee abonné nga man ñu ko wone ci écran bi da ngay daw youtube nga bind daare alquran bu def chen na affiché bu ko defee nga bëss biton boobu nga xamantene ne moom mooy biton samane bi bu ko defee nga tek ci notification bi tek ci biton zem ma lay permettre bëpp vidéo bi dugal nga mën ci jot mbokk yi ñu ñëw ci leçon yi comme ni nga xamantene non lañ ko baaxoo defee jour aviation Bini ñuy indi xam ngeen ni jàng nañu version bu njëkk bi muy abatasa ñu jàng ñaareel version bi muy ibtc ñu jàng ñetteelu version bi muy ubuntu ñu jàng ñeenteelu version bi muy e abu at as ajj ba fa mu xam ngeen ni mi ngi jeexee e aw ay version yëpp ñoom ñoo bokk fi ñu jeexee waxoon naa leen ba tey tamit ni leen version yëpp la mooy seen différence mooy masque yi fi ñuy nekk mooy seen différence ñoom ñëpp waaye xaraf bu nekk tomb ba fu muy nekk du mas a changé masque moom mooy ñëw soppeeku te ñetti façon masque yi ñoo am masque yett boo xam suuf lay nekk ak si kaw ak masque boo xam bu lonk ak masque boo xamante ni néeg la kon bu ko defee tey ñëw ci naka la ñuy gisee masque néeg mën ko ijji boole ko ndax moom dafa nekk euh, côté boo xamante ni bu jafe la pour ñu ijji ko boole ko moom masque néeg kon la gis ci tableau bi moom mooy a ah, gis ngeen xaraf bu njëkk bi al waaye bi topp masque na nañ ko mas masque kon lu muy nekk ab ab gis nga fekkee a ah, dafa jiitu ñu jël masque néeg tekk si toujours masque néeg moom day ñëw nekk ci day topp ci xaraf bi waaye masque néeg mënut a tàmbali xaraf comme na ñu ko gisee tableau bi ba mu nekk a ah, ab boko bolé mu jox la ab ab ab gis nga do wax a ab de, am ñu ñoo xam dañ koy indi nan a ab a ab mën ta nek nan nan a ab ab bis top di a batay a ñaan a at a at a at Gok boole nu lay jox at at at at kon masque nekk non lañ koy ijjee boo gisee masque boo xamante ni dañ ko yat non a bis top ni masque nekk nga ni at nga boole mu jox la at waaye bu wax a at a at de lo mënta ya. nekk ni bay ci xel benen bis top di a kon a ñaan a as batay waxoon nañ ki bok tak as boktak tak boktak bok tak os dinaa na a as nga boole ko mu jox la as as benen bi stop hmm? di a ad nga boole ko mu jox la ad ad ad, ad. beneen bi si topp di a az az gis nga az dañ koy tudd mu leer bokkut ak ëz bokkut ak oz yooyu dañ koy tudd mu leer da si am solo az a az bokk boole mu jox la az az kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci masque boo xamante ni masque kaw la ba pare ñu masque kaw ak masque néeg boo seetloo bind bi ci kaw xaraf yëpp yi nga xam moom moo tàmbali baat bi yëpp ay ala yëpp ñu masque masque yett léegi kon dañuy ñëw bind bi nga xamante ne mooy bind bi si digg bi ñu xool yow boo gisee ñoom ñëpp i ñoom ñëpp i lañ i bind ba pare ñu ñëwaat amaat masque nekk comme yu njëkk yi ñu mel kon tamit ñu boole moom it ñu xool bis digg bi mu nekk i ab boo ko boolee mu nekk ib ib ib i ab boo ko boolee ib lay nekk kenn du i ab i ab déedéet loolu mënta nekk dana naan i ab ib comme boo doon bind ibrahima ngay bind i ab ngay bind xanaa ib foofu lay tàmbale i at may bi i at at moo ñëw kon ñu boole i at it it gis ma leen di bàyyi loo bu baax si leçon bi parce que masque néeg ni koy ijjee bokk teg comme yeneen masque ni mu yomba ijjee bii il da ngay jël sa xel nga concentré concentration bi moom ngay def ci euh, table bi mooy tax nga mën ko ijji normal mais bu dul loolu rek da nga ko jaaxase di doo ko yëg kon bii nekk i at it it bis topp di i as as gis nga ba tey as ñëwaat na kon ñu koy boole is ba boo koy wax tamit euh, xaraf bi ni ñu koy waxee dafa war a génnaale i as is is mais doo ñëwee ni i as is boo waxee loolu kon ngay yàqat bari boo ñëwee ni i as iji nga ki iji baax waaye boo ñëwee ni i as iji iji baax ba pare daa ñëw daa ñëw i as is boobaa nga yàq baat yana i as ij bi nekk ij normal ka si if is mu nekk ij lip deh ni day mat ñu bàyyi si xel di stop di i abd nga boole mu jox id id id di stop di i as as dañ koy tudd mu leer moom as i as nga boole mu jox is is ñëw si bind bi suuf moom tamit comme noonu lañ ñëwaate moom masque u lañuy jàng foofu u la ba jëpp di tàmbalee xam bu njëkk bi bis lañ tàmbalee bis digg bi ñu tàmbalee i bi suuf moom u la dañuy di xool baat yu baax u lañ bind application bi moom may bindee noonu rek mais u la bind waaw am na lunk masque dafa lunk noonu lay def bokk tak masque a bi masque u la léegi ñu gis ñu tàmbalee u u stop u ab ba ab ñu ànd kon u ab boo ko boolee mu jox la up up bi stop di u at nga boole mu jox la ut ut gis na ut bi stop di u af ba af. af anu. ñëwaat U as, us us us Benim sap de a, u, u, ula, u, ad. não pode me kemudian lá Ud, ud. Benim sap de u, as. Di as não pode me kemudian lá Uz, uz. us kon ñu bàyyi si xel bu baax a baax ñu ngi koy jàngee bu ko defee léegi dañuy bàyyi euh, ñu xool image bi noonu bu ko defee képp koo xamante ni yaa ngi suivre chaîne da ngay bàyyi image bi noonu boo dégloo li ñu wax ba pare nga jëm si jaaraat bu ko defee nga xool après léegi fii ak deux minutes trois minutes dañ siy ñëwaat jaaraat bu ko defee yow da nga xam baat yi nga xamante ni waxoon nga ko mu nekk noonu ak baat yi nga xamante ni waxoon nga ko nekkul noonu bu ko defee kon nañ bàyyi nga xool ak sa bopp jël ko sa bopp. ginaaw ban ko parim pare mbokk mi nga wax ka nga jël ko sa bopp léegi da ngay dégluwaat fii ni ñu koy waxee bu fekkee ne am na baaj yoo xamante ne waxoon nga ko nekkul noonu danga xam après bu ko defee nga jàpp baaj mu nekk a ab nga boole ko mu jox la ab ab bi stop di a at nga boole ko mu jox la at at bi stop di a as nga boole ko mu jox la as as bi stop di a ad nggak boleh mujarlah ad ad bis stop di a az nggak boleh mujarlah az az bis digi i ab ib i ab ib i at it i at it i as is i as is i ad id i ad id i as is i as is bisou ou ab, ou ou ab, ou ou at, ou ou at, as us as us u ad ud u ad ud as us as us Quand on définit leçon bi bu ko defee léegi dangay ngay déglu su ma waxee nga euh, wax ànd ak man waaye yaa boole si bopp du ko boole nag. ayca bisimilah. a ab yaa boole. a at boole ko. a as az boole i ab boole i at. Bolek I as Bolek I ad Bolek I az, Bolek U ab Bolek U at Bolek U as Bolek A U U ad Bolek U az, Bolek kon defna lol bo ko topé rek dana yombal sa jang torop waaw ah, ndax dana dana tax yaay mën a ijjal sa bopp di booleel sa bopp kon tey vidéo bi def naa ne la woon di leen jaajëfal ci euh, bàyyi xel ngeen ñuy bàyyi xel di la wax bu dee abonné ko te nga yem si vidéo bi maa ngi lay conseillé nga abonné chaîne bi te nga daw nga seetaan playlist bu njëkk bi vidéo yi njëkk def si cours arabe bu ko defee nga suivre yooyu doogaa di ñëw ci vidéo yi nga xamante ni moom mooy vidéo yu bees yi ñuy doogaa dugal bu fekkee ni jotagoo woon jàng dara bu fekkee ni jotoon nga jàng yi nag mën nga ànd ak ñu ci vidéo yi nga xamante ni moom la ñuy def di leen jaajëfal baax a baax baax lu si jub ñu xam ne suñu borom la lu si dëng ñu xam ne matadik doomu aadama la in uridu ilal islah ni ma ko baaxoo di waxee rek ba tey yaa ngi jëf gaay